final bi daal xanaa di ci am mbégte di ci am contentement ti euh, nii mu déroulé véritablement muy feet boo xam ne feetu ndaw ñi la feetu population Touré Mbonde la ñu joué ko ci fair play joué ko ci sportivité ndax tey jii ku ñëw assister final bi gis na ne kat véritablement Euh, ASC yi nga xam ne ñoo ko doon jongante produir nañ fi jeu de qualité kon loolu moom seet nañ ko euh, da di nag football mënul ñàkk euh, un vainqueur ku gagné ak ku ñu gagné mais li may wax tey ndaw ñi ñoo gagné tey ndawi Touré Mbond jeunesse Touré Mbond yëpp ñoo gagné ndaxte li tax man na ñoo gagné organiser tournoi ak ni mu méttee ba ñu yegg si ci final yi ñu joué ko ci jàmm ba kenn gagné je crois que loolu. damay féliciter toute la jeunesse mais maa ngi beral en tout cas ay félicitation euh, ASC euh, jàppo bu ñangeen bi nga xam ne moom tey mooy mooy vainqueur bi moom la suñu borom def ñu gagné di euh, féliciter ak encourager également ASC jàppo bu yëgoo bu Kër Tamsir véritablement moom it démérité wul ndax ku dem boo joué ñaari final mooy final zonal nga football euh, final coupe du maire kooku démérité woo kon maa ngi leen di féliciter bu baax a baax a baax di encourager waat encore la jeunesse xam ne ñun en tout cas en tant que autorité ñoo ngi ci seen gannaaw ñoo ngi ci seen kanam te lépp lu ñu mën a def pour euh, assurer leen cadre d'épanouissement dinañ ko def donc euh, li ma ci waxu doon mooy euh, la preuve mooy stade bi également bientôt travaux yi léegi ñu redémarrer incha allah su ko defee fii léeg deux à trois mois incha allah danañ mën a réfectionner state bi su ko defee déen suñ ko fekkee jàmm yaakaar naa ne final yi ñuy football yëpp foofa lañ koy footballé incha allah